ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا mooy addu'a indal iftaar moom la ñuy tëjee mooy ñaan bi nit ki ñaan booy dog mbokk yi nañu góorgóorlu foofu yonent bi dafa wax ni inna li saaimi inda fitrihi la daawatun ma turaddu yonent bi dafa wax ni ki woor am na sansu moment bi muy dog lu mu fa ñaan yàlla nangul ko ko waaye foofu mbokk yi ñaan yi bari na dina am ay extrait rek yu ñu ci joxe ndax li ma wax fii ci émission bi passé dama ne wàllu diine ci sharia bul indi benn rek ne looloo am ndax yonent bi bari na saxaaba yoo xam ni daan ko jege. kenn ku ci nekk am na lu yóbbu ci yonent bi dinaa joxe rek ay quelques et ci ay ñaan pour ñi nga xam ne ñooy déglu émission bi mën ko jàpp am na ñaan boo xam ne abdullah ibnu amru moom moo ko wax moom daana wax ne isa aftara buy de buy doog dafay wax ne allahumma inni asaluka bi rahmatika allati wasaata kulli cheyin an taxfira li allahumma inni asaluka bi rahmatika allati wasita kulla cheyin an taxfira allahuma inni asaluka bi rahmatika allati wasata kulla cheyin an taxfira li muy tekki mooy yow sama borom maa ngi lay ñaan ci sa yërmande bi nga xam ne yaatu na ci lu ne nga jéggal ma samay bakka kon boobu benn la ci ñaan yi am na ñaan boo xam ne ibnu abbas abbas ci boppam moo ko nettali moo wax ne yonent bi bu doon dox dafay wax ne allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiu alalim allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiu alalim allahumma laka sumna wa ala risqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiul alim te mooy allahuma yow sama borom sama koor gi yaa tax ma woor yaa ma jox wërsëg bi may doge kon nag ma nangul te yow yaay ki nga xam ne yaay dégg waaye yaay ki nga xam ne yaa xam beneen ñaan bi am ibnu amar abdullah ibnu amar moo ko wax nee na yonent bi daana wax ne suy dog zahabat zamau wabtalatil uruq wasabatal sabata al ajru inshaa allahu zahaba alzamaw wabtalat al uruq ajru inshaa te mooy li muy tekk mooy mar wi dem na sidit yi nga xam ne xawoon na wow xum na tooy na te inshaa allahu ci jële yoon am na ñaan boo xam ne moom lañ gën a miin nag ci Sénégal allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faxfir lii maa qaddamtu wa ma aqartu allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faxfir lii qaddamtu wa maa aqartu allahuma yow sama borom laka sumtu yaa sama koor gi yaa tax ma woor wa bika amantu yow la gëm wa ala risqika ci sa wërsëg bi ma jox aftartu ci laa dogee fax kon boo gisee ñuy wax ñaan yi il faut nit ñi di ko jàpp bu waxee ne yow sama koor gi yaa tax ma woor yaa li may doge yaa ma ko jox kon nag mu ne la fax fiir lii yang ma yàlla nag ma jéggal ma qaddamtu wa ma aqartu li ma defoon ci bàkkaar lu yàgg nag ma ko jéggal waaye li ma mujj a def ci bàkkaar yi nag ma ko jéggal li tax ñuy incité foofu mooy am na yoo xam ne léeg-léeg ñu di ko def ci koor donte aayul waaye bu ñu tegee ay sketch moment bi ñuy waaj a dog nga xam ni léeg-léeg na ngay toog di ko seetaan di reetaan ba daanaka bu heure dog di jot boo amul boo xalaatul tuuti wala nga ànd ak dal boo watul doo tala ñaan ndax diggante bi étiquette si bi di jeex ak fi ñuy ne ñu ngi noddu daanaka da ngay jël tàndarma bi rek seex kon loolu mën nga ko seetaan mais boo demee boo xam ne léegi heure dog jot loo yàkkamti yàkkamti ñaanal ndax Seydina Muhammad moo wax ne addu'a muxul ibaada te mooy ñaan mooy cerveau ci jaamu yàlla wax nañ ne adduwaaw silaahul mu'min nee na ñaan mooy ngànnaayu jullit kon nañu profité ci moment boobu soxla soo am nga ñaan ko moo xam sa njaboot moo xam sa bopp moo xam sa liggéey moo xam sa environnement moo xam nga ñaanal sa réew yooyu nañ ci góorgóorlu ci weer bi bu ko defee foofu la ñuy taxaw ci émission bi di ñaan ci yàlla lépp lu ci baax ngeen xam ne mbaaxu yàlla la lépp lu ci juum ñu jéggalu ko sunu borom yàlla ñu ko yàlla jégal wa ma dalika ala allahi bi aziz ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu